metti na trop parce que sa xere suñ ko téyee jàpp ko day metti neexul kenn man boobu ba léegi damay jooy parce que daf ñu bett parce que ñun xalaatuñu si loolu Pape Ndiaye yaa ngi dégg wax bi aussi tawit benn côté affaire bi jaaxal nañu parce que même bu fekkee ne xale yu jigéen ñi ak ñu góoñ noo taxaw taachal ko si benn affaire jóg nañu ñoom muy doomu Sidi Lamine jóg na génn xaalis bi teg ko sur la ñoo ñu bëgg ko jël ne jeex na ñu ne non non après ay coup de fil di daw ñu ne déedéet nañ ko fa tëye xam nga loolu tam dafa louche parce que xaalis bu ñuy déclaré yow ñu tagal la ko sur la table bu ñu la ko fayee war nga bàyyi nit ki mu libéré wu mais waroo ko téye kon nag ñu loolu ñu ko téye yaa a quelque chose qui cloche mais nag du ñu dépassé du ñu wax lenn loo xam ne metti na suñu nit la ñu téye ñu ngi ñaan euh, loi boobu dimbali ñu rek jàppale ñu ndax gëm nañ ko xam nañ ne ñoom dinañ def seen liggéey liggéey bi mooy lan nañ ko doxal rek si yoon bàyyi ko mu dem liggéey liggéeyam parce que tamit am na solo loolu si peuple bi te peuple bi soxla la loolu Pape Ndiaye parce que tey ji émission bu mu dul woon def rek feebar nañu bëri koo wax mu ne Pape Ndiaye te du mu déglu émission yaa ngi dégg nit nag bu amee liggéeyu ndey pour faagaadal ko du yomb mais nag dañuy ñaan rek ñu may ñu loo xamante ne rek Fatou Ndiaye ñu libéré ko si si ñekk ak teraanga du du ñun duñu ay nit ñu xam ne danoo insolente wala danoo danoo réew wala dara dañuy ñaan si ñekk ak teraanga ñu bàyyi suñu frère mu dem liggéey liggéeyam dimbali yaayam aussi tamit ndax yaayam benn bu góor la am te moom la am yaakaar moom kese la am si doom na nanu dimbali yaayam ndax boo ba léegi dafa feebar lekkul naanu fi nan ko jàppale ngir yàlla diggante jullit ak moroomam Macky Sall aussi maa ngi koy ñaan lii mu dugal si loxoom ba nu libéré Macky Sall ba nu libéré euh, paam Ndiaye parce que moom waxoon na ni léegi peuple bi la fi nekkal kon nag lii na si dugal loxoom jàpp ne ñabootam la nu jàpp ndax kii journaliste moom lay liggéeyal ba tey képp journaliste bu nekk fii moom si moom lay liggéeyal parce que tamit Sénégal la rek te moom moo ñu uuf ñun ñëpp maa ngi koy ñaan en tant que président dañ koy ñaan si ñekk ak teraanga mu jàppaleel ñu suñu frère bi ñu libéré ko ñu nekk si leneen merci